bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi santaat borom bi subhanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar ci Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram di am mbégte di toog ci jataay bu tedd bi nga xam ne jëmm ji ñu jàkkaar lool yaa Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir di ki nga xam ne moo yore kàddu sëriñ bi waaye jiite lépp lu jëm ci wàllu yëngutu bi jëm ci màggalu Touba sëriñ bi jox ko ndigal ci loolu mu tànnoon ci ab banqaas boo xam ne da koo dénk doomam di jarbaatam di sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde faatma moom it mu tànn jëwriñ jum ñu booleel di Serigne Modou Mbacke si moom Serigne Moustapha si mu ànd ko ak sëriñ Serigne di Diakhaté ak bokk yi ñu ko àndal ngir waajal karawaan bi nga xam ne das koy amal at mu jot su màggal gi dëgmalee ngir toppaat ci jéegooy sëriñ bi waaye it jàngalewaat njàngaleem sëriñ bi ci gox yi nga xamante ne bii àggagu fa. loolu nag moo tax saa yu ko waajalee danañ toog ak Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo jiite liggéey bi te léegi lépp di ay xalaatam ngir gën a yàqali yoon wi waaye gën a fekk murit yi fañ ne yët leen ci njàngaleem sëriñ bi ak waajtaayu màggalu Touba. moo tax tey jii ñu toog ngir fas yéenee tàmbali liggéey boobu yemoo ak dibeer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi. na mu ñu joxe woon ndigal li ñu fas yéene jëm kër Cheikh Mouhamadul Amin moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul fekk fa njabootu Cheikh Mouhamadul Amin ci njiitul Serigne Moustapha mi nga xam ne tey jii mooy jëmmi Serigne Baara di jëmmi Serigne Sidi Mokhtar Serigne bi nag fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ne mbokk yëpp danañ ko jariñoo waaye dana ko dénkaane itam ci liggéey bi nga xam ne moom lañ dëgmal te waxtu wu ne Serigne bi di ci soññee kon ñun ñëpp ñu maa si déglu Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalib yi murid yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci ndigal ak turu ak Cheikh Mouhamadou taxa mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak kàttanal ko ba mboolem naa li mu am ci liggéeyal Serigne Touba mu mottali ko ma kaw jortam ñu del siwaat fii nag tey ci niñ ko baaxoo defee ci li ñuy tudde wala euh, athari Cheikh ni ko Serigne Fallou waxe léegi muy loo xam ne bañ ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jublu jubluwaay bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi fi jaar dafa bari ñim am lante dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexit dafa yaatu kon ñett li seeni jeexit ñett li jeexit la moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaay jullit yi ak taalibe moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi ngir bu fee bu dee barab bu sëriñ bi mas a jaar la ñu demaat fa fàttali la taxoon sëriñ bi jaar fa ak la fa xewoon bu dee barab boo xam ne itam ñu am lante woon sëriñ bi la mooy itam ñu defe ko noonu nga xam ne itam njabootu sëriñ bi lañ wala ñu àndoon sëriñ bi itam ñu defe noonu ndax ñoom kat xamle leen mooy xam sëriñ Tuubaa moo tax at mu jot dañuy tànn kenn ci njabootu Serigne Touba tànn kenn ci bokk yi bokki Serigne bi tànn kenn ci Cheikh Serigne Touba yi tànn léeg-léeg ñu tànn léeg-léeg ci ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom lislaam bokk ñoom réew mi ngir ku ci ne am na ci barab yoo xam ne dañ seqoon ak Serigne bi yàgg na te ren ba histoire boo ko nett nettali di ko fàttali wala nga di ko bind bu yàggee day mujj mel lu far kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la liggéey bi nekk ci seen loxo. ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen soññaat itam ndax na ngeen xam ne seen liggéey bi liggéey bu yaatu la liggéey la bu am jeexit ndax jeexit ji mooy ña ngeen di fekke ñooy dil soit di ko wax euh, Serigne Sidi Muxtaar am na ay yoon yoon at jot moo fàttali ni liggéey boobu ñuy wax caravane bi de xam naa lu soxal bokk julli ji la ndax ñoo ñëw bu fi di ko wax bokki taalib bi itam noonu la leen itteele moo tax ren jii ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir fàttali leen ak euh, fàttaliwaate lañ seqoon sëy bi ndax bu màgg li xasee ba dugg day xat ba am na ci loo xam ne dañ ko mën a war a leeral luñ ko def kon daal ngeen xam ne dañu ngeen kee cantuk sëriñ bi ak ngërëm bi nga xam ne Cheikh Sidi Moussa bàyyi ko ndax ci biir ak xilaafam la lii tàmbale bi mu fi bàyyi ko itam yoon wi lépp luñ ñu ci def ki fi nekk Sëriñ moo ci sañ a digle moo ci sañ tere moo tax du ci seq benn jéego te laaju ko ci digal daaw bi nga xamee ne mi ngi tàmbul liggéey bi par sens laa dal di jokk laa ko yëgal sëriñ bi leeral ko ko lépp ba xam ni mu daal di mu jox waa ci digal yeesawaat ko ren ji laata ñu seqwaat benn jéego demaat nañ ba moom laajaat ko ci ndigal mu joxwaat ndigal yi kon ngeen xam ne li ngeen def ci ndigalu sëriñ bi ngeen koy defee kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa li ngeen ci fas yéene liggéey Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba na ko yàlla ngeen ci daje ngërëmam yàlla na suñu borom aar sàmm leen ba ngeen dem ak jàmm dellusiwaat ak jàmm te daje ci ak loo xam ne mosuñu ko ci am ñu ñaaral bu baax te na ngeen ci rafet jot ndax euh, ndigal moom lépp lu ko loo xam ne euh, jiitu na ci rek yaakaar mën na caa tege hmm. kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm di fàttali itam nag. ni ñu ko daa waxee bis bis bu njëkk ci safar muy suba ci altine ji euh, lañ war a jàng alxuraan bu fekkent ne ndax weer day feeñ wala mu ñàkk feeñ comme guddi xasida gi rek bëgg mu nekk lu lu weesu bisu bis bu njëkk ci safar moo def ñu jàpp ko suba ci guddi jàngum alxuraan bi itam ñu jàpp ko ginnaaw boo xamee ne ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw ku ci ne jot jottali ko ci ndigalu sëriñ bi bañ déggoo ci ka jiitu ci wàllu alxuraan di cheikh sëriñ Mamour Mbacke ibnu cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo koy taxaw ànd ko sëriñ Xaadi Jaxate ba ca dolli ko waat it mooy euh, sëriñ Hamsatu Mbacke ibnu sëriñ Soxaybu mi nga xam ne guddi gi mooy jëwriñ ji moo koy taxaw ñu fas fas ko yéene ànd ak moom ci penk jumaa ji delloo lépp toroxlu dellu ci yàlla teewlu Serigne Touba jàngi xasidaay bi ñaan màggal yi jàmm njëkk ci mujj ci te lépp lu ñu ci def itam day see ngërëmu Serigne Touba te dara loo ne ngërëm àdduna la bañ ca tabbi dara loo xam ne lu dëppoowut ak bëgg-bëgg Serigne Touba bañ ca tabbi kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu Serigne Modou Mbacké si mi nga xam ne moom la Serigne Abdou Lahad tànn ci liggéey bi mu jiite ko moo ñu ko ànd ak jëm ñëpp di Serigne Fallou ak euh, Serigne Gana Messere ak ñi nga xam ne dolliwaat nañ leen ci ren xëy na këyit yu nekk fekkuma fi ba ma mën a lim tur yëpp waaye bu ñu xasee tudd ñi ko jiite rek ñëpp tàbbi nañ ci biir. da ngeen xam ne sant nañ leen gërëm nañ leen ndax liggéey bi ñu ngi ko topp waaye gis nañ jeexe ji gis njëriñ li kon yàlla ngeen ko yàgg def. day cee tawfeex day cee ngërëm suñu Tuubaa. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. bismillah. lallaahu yaa xafiisu yaa salaam yaa faariqal xalqi maa bil qasim si wa diini summa ahli wal wal wa maskani laka wa diatu abaduha kasa dunyaaya ma uxraaya fi ani sir fi rosaaya wa shif asab annar an jumlati man yataalaq min abnaa sama wa jumlati al ixwaani min aqaa'i fi ddiini wa fi ddiini wal ajhaad falyakun hishnan wa daaban yaa sama tawalani wa laa takmini ahad subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin Thank you.